non ça dépend xam nga aussi c'est pourquoi comme li nga wax sànq muy chaque fois ñu nekk si ay coow parce que te dem di comme li nga wax dañu xaw a retard su lu bëree bëri très sincèrement loo am la xam nga tey jii sax war nañ dépasser fii waxu waxu waxu supprimer nañu ay lignes def nañu mel nii. parce que tout simplement il fallait il fallait qu'on anticipe parce que information bi ñun ñëpp xam nañ ko depuis très longtemps loolu lu am la mais nag aussi chaque jour moo la wax chaque jour da ngay lu lu lu comme li nga wax sànq nii c'est nga coow yëpp lu ko indi comme li nga wax xam nga dem dikk dafa li ñu am ay wax lu si ëpp. mais mm-hmm. bi si grève bi passé bi nga wax ni problème problème de plan leneen ay nomination ñu fa def yu mel noonu. entreprise bi dafa war a dépasser. non parce que tout ça lu koy réglé leneen rek mooy dafa benn accord d' lu ñu tuddee benn accord d' parce que xam ngeen ko accord d' mooy lan mooy maanaam kayit goo xam da nga koy signé direction sax moo koy signé ak partenaires sociaux yi. bu ñu xasee bi signé ko kenn du si kenn du si delluwaat ginnaaw accord ba mu mën a protéger tey les plans de carrière moom mooy wàññi le pouvoir discrétionnaire du directeur général. Mm-hmm, du DG. nga xam dootul mën def yenn nomination dootu ko mën. Mm-hmm. lenn laa si cité accord bu ñu xasee ba signé ko poste bu ñu pourvoir bu amul si DG bala mu utiliser son pouvoir discrétionnaire day fekk post bi kenn mënu ko utile kenn mënu ko. am si kër kenn maanaam kenn mënu fa dem si kër gi. maanaam mm-hmm. profil bi amu fi. ñu fa nekk ñu fa nekk kenn mënu fa dem si lay mais tant que ko. comme li nga wax loolu yàgg nañ ko fii si di ko yàgg xeex les problèmes de première carrière mun nga jël Massamba léegi mu nekk sa xarit. est-ce bi nga jël ko. est-ce que défi bi wala nga woolu ko quelque part nga jël ko nga nommé ko quelque part. loolu bu amee aussi xam nga mm. donte moralement ñun nee naa yooyu yëpp lu rafet mais aussi jur c'est légal. mais est que mais c'est légal parce que loolu wax ma ne ñun suñu combat tey dañ ko xaw a suñu combat fenn la nekk tey au niveau des syndicats te loolu la ñuy mm. tax damay def glissement un peu di dénoncer ba tey la moo tax le nouveau directeur général ñëwul jël service parce que def problème yi dañu bari à Dakar Midi les problèmes sont tellement urgents comme wax na la sànq l' accord établissement accord d'établissement bi ko signé moom mooy fay coow si kër nest pas mooy fay coow parce bu ñu xasee bi signé ko loolu laa expliqué sànq mënatoo directeur général bu fi nekk mënatoo def yenn yi te dañ la xaw a ligoté lu bëree bëri sa pouvoir dañ koy nangu lu bëri bëri